sunu euh, mustafa Silla, salam alaikum. waaleykum salam. yaa ngi bokk ci euh, ñi ñi wowe euh, mouvement Malika d'abord. Mm. Fofa Macky Sall président de la République fay ñew tay mm. ci mbëbës ak projet bi ñu sumbu ci mengalé mbalit mi niñ koy gérer ko ko jamono ba du loraté ci mm. yi kilifa yi. yeen ngeen mouvement Malika d'abord ba lañu sori. Euh, lu taxoon jog mouvement bobu kagn la sosu ak euh, mëbët ku len ko tax sos. waaw ma ngi len di nuyu di len siar yéen ñep di nuyu wa malik gëm a jógee ñëpp te xam senum ndonga mo ñu fi ko ñu wax mustafa si la ñu naan la voix de sans voix d'abord li ko sosu ni dekk bi doxé li ci wara am ak lan mo ci wara am te amu ci ak bu ci amé par nan lañ ko wara a est ce que defé nañ ko wara defé lolou d'abord sosu buru Malika ada nag ñëpp a ngi si parce que politiciens yaa ngi si ñu dul politique gis ñi nga xam ne faruñu fenn ñoo ngi si comme man sax ñoo si ëpp si groupe bi kon nag doon na groupe boo xam si ni Malika ñëpp daal ñoo si bokk moo ñu tuddee ko Malika Macky gan membet eh, ngeen ci am da ngeen di am eh, tawat yu ngeen ko bëgg a baaxeem déet waaw loolu na fi trop tawat yi ko bëgg a parce que barada na si ñoo xam ne ñoo ngi foofu di fa liggéey benn bi mbëbës impacté ñu lu bari lim ñu impacté weesuwul lam fay tuuru parce que lépp foo dégg ñu ni mbalit am na fa xamal ni am benn problème bu fa am parce que mbalit ci kër lañ koy jëlee liñ jëlee ci kër di ko tuuri kon doon na loo xam ne si dañ naan lu baaxul la ndax lu baax kenn ko tuuri donc buñ ko jëlee ba tuuri ko fan koy tuur am leneen lu mu def parce que malika dañ fay roose ay tool la ñun ñii am nañ fa ay tool man mii sama papa am na fay tool tool yam fa am na si loo xam ne mbëbës jël na ko ba la fa des actuellement ni bu doon cent la quatre-vingt-dix-huit pour cent yi dem na kon ñun impacté nañ deux fois beneen bi si topp mooy am na ñu fay liggéey. ay toolu lu mu toolu lu jum. tool yu ñu doon roose waaw mbéy. Hmm. mais actuellement nii mbëbës bi nangu na ko. ba donc la fa des daanaka lu mat vingt parcelles donc moom fa des. est-ce que doonu askan wi ak dëkk yi ñoo fekk si euh, mbëbës waaye mbëbës fekkiwu leen yéen yéen a ko fekki askan wi ko fekki. non jamono ba may nekk foofu noonu foofu ay tool la hmm. ay tool la. Hmm. mais dafay dem ba tool foo xam tool moom fu mu nekk xamal ni dëkk waay moo ko fa bàyyi bu demee nag ba mu wóor na ni ngi dëkk si nan c'est normal que tool yi tuxu parce tool mooy foo xamee si ni mënuñu faa mënuñu faa dëkk ñëw ñu di fa bay loolu rek moo ko war a mais bu demee ba dëkk waay bi war a tuxu si dana tax tool yi dem loolu moo war a tool yu bari tuxu foofu noonu mais am na ñoo xam ne daf leen impact muy ña fay liggéey ña fay liggéey na mu impacté leen président war fa ñëw ñu war fa placé benn projet boo xam ñoo ngi koy waaw ñooy liggéey ci fa ñuy tuur mbalit ma maanaam buujumaan yi buujumaan yi hmm. parce que ñuy dugg ci di for di di di récupérer di récupérer ñoom mooy hmm. lu ma 3000 personnes ñoo ngi foofu noonu ba par ñu andi benn projet boo xam ne dafa war a ñëw lañ fa doon liggéey dana changé changé ga muy nag balaa kenn xalaat kenn waroon nga leen mën a xalaat ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo fa doon liggéey parce que ay njaboot lañu yor bo demoon tay ji ba fekk lañ fa ñu dëkke da ngay yéemu ci suñu borom ndax da nga naan li nan la fa nit mëna a mais amuñu pexé kon bu programme amé am programme bo xon bu xasse ba ñu programme ni li mo fa wara am ñoo war nga leen ci xalaat ak fan nga war jaar ak ñoom ba liñ doon am ñu bañ ko mëna ñak mais ñu am ko ci amen wo xamne ne mu rafet lay doon seen wër gi dem gën fa yok benen bi stop nak moy li jëm ci fofu dundu way bi dafa am impact impact bi mu am moy feebar dafa yomb parce que mbalit bi day tak yan xam ngeen ko parce que day tok ba yag mu tak ndax fofu dafa am gaz mais bu tàkkee problème bi foofu noonu xale yi fuy judd daanaka koo ci day am problème tuberculose ndax dañuy sëqat problème mu nooy yi dañ koy am mais li ñu ci gën a métti mooy dispensaires yi nekk foofu noonu état def leen war a subventionné garab ruñu ko foon a jënd mais loolu amu fa feebar ba métti na fa trop mais ña fa nekk di liggéey amuñu fu ñu jëm état moo leen war a moo leen war a dimbali moo leen war a encadré jàpp leen ci seen dund parce que biir réew mi ndaxte lépp loo mën di jënd ci biir réew mi ci biir réew mi nga koy jëndee fi nga koy delloowaat kon bu fekkee am na loolu dal te ñi la ko teg muy dëkk bi parce que mbalinu Dakar yëpp foofu lañ ko Malika lañ koy sotti kon ñooñu am na loo xam ne état waraloon na ko ñoom defu ko kon bu fekkee defu ko nag mën dafa indi benn projet jaadu na mu seet ñi nga xam ne ñoo fa nekk mu fex leen a ci biir projet bi ba ñu gis ci seen bopp parce que bu dul loolu ñoom ñoo ci gën a lor encore ñun lor nañu waa Malick mais ñoom dañ ciy lor waat est-ce que yéen projet bii di Promoged war a leen ko woon rafetlu euh, ngaañ-ngaañ yi nga wax fii yëpp conséquences yi mu am ci yéen seen dund hmm. tey ñu ne daañu ko traité ba nga xamante ne loraange yooyu yëpp dootul am yéen au contraire leen war a sant yàlla xam ne seeni i jafe-jafe saafara wu na non alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax parce que mbëbës benn da daan tàkk bu tàkkee saxaar si dana bari trop agression yi bari woon na fa trop mais poste police am na fa boo xam si dañ ko faa teg kon agression bi diggante boobu dañ na beneen bi si lu jëm si tàkk-tàkk yi. wàññeeku police avancé ci biir euh, ci biir décharge bi. waaw non avancé bi parce que li jëm ci agression bi daanaka ci porte bi foofu lay doon ndax nit ñi fa la taxaw di jël client parce que serveur pour liggéey ba wàcc foofu ngay jaar parce que dafa doon carrefour boo xam il faut nit ñi dafa wàcc mais actuellement ni poste police nga fa boo xam ni actuellement dimbali na nit ñi ba agression yi foofu wàññeeku na mais projet bi danañu dimbali ndax lor gi mi lor moy ñepp ñi nga xamni ne ñoo fa doon saxaar spectacle moom dootu fa am parce que bu fa amé dootul arrangé li nga xamni mo do liggéey bi kon mu mënut fa nek mais la fay nek la muy ñuy loré moy ñafa doon dund buñ jotatu lañ daan dundé kon benen problème dana posé wu lu ngeen bëgg ndax njogu limi laaj mhm. euh gérer mbalit mi mu ko ak jamono ba lorange yi dak mhm. mo gën lepp no ndax yaangi jambat tawat yek euh, feebar yi ci euh, juddoo yépp effectivement lool mo am solo sax gérer mbalit ba nga xamni ni képp ku jaar fii da nga xamee ma dëkk Malika ndax sunu problème problème mbëbës la kon bu fekkee am na projet boo xam ne day ñëw loolu am fa ñu ne xalaat ni projet bi nii la war a demee ñu danañu arrangé mais projet bi am na lu leer ci mais leeru ci ñun moo ëpp. mais xam nga bu ñu dee wax dëgg rek. Mm-hmm. yaa ngi naan ñetti junni nit ñoo fay liggéey. Mm-hmm. di for. Mm-hmm. waaye ña fa sanc ay kër ay dëkkuwaay ca biir itam. xaw ma ba xam génn na ñoom génnuñu. loolu tam du sotti ñëw ba ci biir euh, euh, mbëbës ca fal mbalit ma ne nga samp fay néeg di fa fanaan ak yeewoo ko nelaw itam euh, gënul. gënul leen mais nag parfois ni dana def dara bala nga koy yedd da ngay dem ba fekk fa mu nekk nga xam conséquence bi muy dund da nga xam ndax kii war nga ko yedd wala da nga ko war a yërëm parce que parfois ni da nga ko yedd mais da nga ko fekkul ku soñoon tey ji boo xëyee foofu ba wàcc da ngay dem tëddi sa kaw étage tëddi ci say kilim. waaye décharge du dëkkuwaay itam sëñ bi. mais décharge du dëkkuwaay mais ki nga xam ne dafa jógee lu mel ni Touba. mu wóor ko ne bu ñëwee Dakar fii location bi seer na amul leen lu mu dundee te xalaat ni foofu la war a jël lu dund rek njabootam dana fa dund ci ak conséquence bu ah, loolu fa nekk moom d'accord naa ak yow loolu moom du lay mais ku amul la la gënal da ngay jàpp ci la fa sës loolu moo waral ñoom ñu toog foofu noonu nekk fa dem koo dund mais doonu la leen gënal parce que képp koo gis mu dem di fanaan ba ci mbalit amul la gënal première fois mooy liggéey ci mbalit gënalul kenn ci sama gis-gis mais ñàkk pexe dana tax a def ni ki loo xam si ni mën nga ko faa fekk xeeb ko mais soo demee ba xam la muy dund xeebaay gi mën a deñ hmm. léegi ñooñu di liggéey ci mbalit mi euh, li ngeen séntu ci ñoom ci président ak nguur gi jëm ci projet bees bi lan lañ leen war a defal. waaw li ñu leen war a defal mooy fexe ba intégré leen ci biir li nga xam ne moom la ñu soxla ni diplôme yi bu dee ay diplôme ñu ni lii lañ soxla pour nit ki man koo am pour mën a liggéey ci fii première fois ki ko waroon a njëkk a incarné muy sunu maire maire Malick Momar Talla Gadiaga parce que ñay liggéey malika mbalit ba ci biir malika la nek kon waroon na mën anticiper dem ci ñi nga xam ñoo gérer projet bi ñun dalal nañ ko suñu groupe muy mbisin mu expliqué li projet bi ñun xam nañ mais am na ñoo xamuñu parce que jotuñoo bokk si groupe bi léegi ñun ñi nga xam xam nañ moom moo waroon a dajale nit dem ba egg foofu ne xamal leen ni ku bëgg liggéey ci projet bi ci yan ngay jaar wan yoon nga jaar lan ngay soxla ci ay kayit ban formation ngay soxla ñun la bii lañu soxla muy jël ay doomam ne leen kaay leen ñu dem lii ak lii ak lii ak lii ngeen def formation bi bu ngeen ko def projet bi commencé di ci mën a liggéey mais loolu lépp amut jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg fu ne dugg nañ fa pour lan mën a satisfaire population Malika ba li ko mm-hmm. ñàkk ki ñu a contre Talla Gadiaga seen maire ah, lu ne ngeen koy wekk dégg nañ fa sax coowal suuf ngeen koy joxoñee naan am na suuf suñu joxe euh, maire bi war koo gérer ak séddale na ko ak ñoom seen loolu lu mu sax. loolu lu am la man ci ñi ko njëkk a contre laa bokk du ma ko nëbb loolu moo war a ñu naan ma la voix des sans voix parce que li ko waral daf ci am ñoo xam ne si ni dañoo nekk foofu noonu li jëm ci wàllu suuf si bu état joxee suuf joxul Talla Gadiaga suuf pour mu jaay daf koo jox pour population Malika population Malika boobu dix parcelle onze parcelles la leen jox ni lii laa maa ko jox waa Malika muy lan cadre bi la reste dañ koo jël am ci ñoo xam ne si dañ koo jaay pour séddoo ko. parce que am nga fi nit yi ngay wax est na la. bien sûr 37 hectares la moo nekk nii. lii 37 ectare la 37 hectares bi administration Sénégal moo ko jox bi mu koy joxee li jëm ci wàllu terre bi ñi nga xam ne si dañ leen yëkkati dañ leen faa jël ñu yóbbu leen Malika pour dala leen foofu noonu parce que état buy fay li muy fay mooy pen mais fayul suuf suuf bi muy fay nag dafa dama la jël fii déloosé la yóbbu la Malika ñun d'accord nañ leen a dalal mais bu la ko loolu li mu ko wax li ko taalaga ji wax mooy. sama population lo jël ñew ci penc ray faw nak sédélé ko ba paré do ci jox wa penc mi wa dëkk bi kon lool dafa ñaaw bi mu démé lool nak ñu arrondir ko ba mu doon 37 hectares impact yi motul 200 400 parcelles ta actuellement ni mi ngi ci 1800 et quelques parcelles kon li dess anam fa la dugg lool moy suñu problème man duma ko neub parce que bu mu doon lu muy nëbb du ma taxaw fii di wax malika bam daj ben tafaasi la fo nek mo fa nek muy man kon li may wax man xam naa ko bu baax Talla Gadiaga mënuñu ànd ak moom parce que li muy jëf ci sunu li nga xam ne ñun ñoo ko moom mooy li jëm ci wàllu foncier bi ànduñu ci tey ànduñu ci suba chaque jour loolu moo fi indi problème coow boo dégg ma ne ko xamal problème suuf la te actuellement ni loolu moom mooy li nga xam ne mooy suñu problème ñoom mbëbës d' accord nañ ci président la mu fay ñëw d' accord nañ ci bu baax d' bi mais li ñu d' accord mooy Talla Gadiaga actuellement ni muy doxale te lii problème bi mooy pi mbëbës toog 114 hectares la 114 hectares yi 30 hectares lañ ci soxla li nga xam ne si moom la kii bi occupé projet bi léegi li des nan lañ koy def parce que autour bi nga xam ne mooy autour mbëbës bi mi ngi ci 17 mètres 1 mètre nga ciy dolli moom doon 5 étages fa mu nekkoon kon dafa xóotoon rembale nañ ko ba nga xam ne actuellement li mbalit bi jël am na 5 étages loolu nan nga koy def ak fan la war a mën a jëm ak boo ko bëggee ñoo jariñoo fooy jaar. léegi li mu li ma dégg Talla Gadio wax ko mooy mu doon beneen problème mooy dafay laaj administration Sénégal 150 hectares pour lan. mu dédommagé ko waa Malika man li ma si njëkk a wax loolu bu ko defee bu fekkee nar na ko def bu mu ko jox ñeneen ñu bokkul population Malika. 150 hectares am na foofa. am na fa. waaw hmm. ah, am na fa ci littoral bi mais du loo xamee si ni lu nit ñi dëkkagul la. littoral bi de moom euh, c'est fini ginnaaw Macky Sall daggulu na filao yee ci géejuwaay bu rando ba ca Malika. Euh, foofu daal moom fi mu toll nii moom jeex na. mais actuellement ni VDN 3 bi il faut day prolonger. actuellement loolu li fi mënul doon leneen lu dul dëkkuwaay parce que VDN bi pour mu yem foofu amul benn njariñ loolu boo ci jógee ñu ne dañ koy dédommagé waa Malika li nga ko war a dédommagé actuellement bu ñu ko jëloon mooy doon li mu war a campagne wax naa ko du benn du ñaar du ñett buñ ko ko joxoon mooy doon li muy campagne amin ay problème politique ngeen di nekk di lijjanti parce que li nga wax yow problème politique ngay nekk di wax ay problème crypto personnel mais pas euh, lu yitteel askan wa dëgg-dëgg man Moustapha Sylla aw ma ko ma faral aw ma ma àndal aw ma ku ma contre. est-ce que doo politicien bu làqu. bu la neexee nga invité ku la neex. que doo sonkolee sax. non sonko fan. Mm. man Moustapha Sylla man awuma kenn ku ma àndal. faruma kenn ma kenn li ma contre mooy dëgg te mu tege ci dëgg. lépp lu ma mën di a waatal ci yàlla mooy du loo xam ne ëllëg dina ñëw fi di ko loo xam ne du ne bu ma koy wax sama diggante ak sama borom laay sama diggante kon du wax lu ma gëmul. politique musuma di meeting musuma ànd kuy politique musuma dem fenn li ma gëm mooy sama liggéey ak li dëkk bi soxla ma taxaw ci ba loolu actuellement tey ji doon dox ba dana ma jaral dem fu nekk yàgg na maa wax ni njariñ ña koy xeex pour dëkk population ba jariñu mën nañ ko bañ a fekk man d' accord naa loolu man nangu na maa xeex bëgg na maa xeex njariñ la bu ñëwee na ko ñeneen waaye man bu ma ko fekkee amul problème mais li ma la bëgg a xamal mooy kuy bañ ñu tudd ci problème politique do wax politicien ndax li fi nek di dekk bi ñu di joxe ku mant doon politiciens yi ñoko yor li ñuy politique lu mu mënti doon moy seen jarign lo xam ni <coughs> balen ma man nañ ko jël géral ko seen bop di ko neexalan di seen bop moy lan en tant que politicien kep ko xam war na mën indi ay militant hmm ko ne war na mën <coughs> mhm. indi ay militant nga and ak mom fexé noko neexale rien que pour lan pour mën gagner pour mën a toogaat foofu. mais mais Talla Gadiaga maire ba est ce que mënal ngeen ko dara 19 ans ngi ni moo nekk maire foofa pexe mu ne ut ngeen ko euh, sëf bu ne sëf ngeen ko ko waaye askan moom lañ àndal. askan moom lañ àndaloon parce que population ka dafa doon population boo xam ne si li leen gënoon a intéressé mooy tool yi dem liggéeyi wàcc ñibbi mais actuellement dafa yaatu parce que li ci dolliku nit ñi ñëw fa jeunesse bi màgg doon na ñoo xam ne yee nañ leen ba mu nekk sa ñun loolu mooy suñu rôle. groupe Malika d'abord mooy day alerte ñëpp xam ne lii xew na après ku ci nekk na nga koy gérer yaa ko xamal sa bopp mais boo duggoon tey Malika nga yor sa micro di interroger da nga xam ndax Talla Gajaga dana falwaat wala du falwaat parce que suñu programme leen kese la mooy nit ñi nañ leen yee xamal leen li xew ba bañ tekki seen bët ku ci nekk boo demee kala neex woote jël ànduma kenn yàgg naa ko wax te ñi may déglu xam na ni man ànduma kenn faralu ma kenn it ma bëgg. mooy dëkk bi tege ci yoon wa man a tege bu leen wóoree Talla Gadiaga moo leen doy ñoom nañ ko wooteelaat bu leen doyul nañ ko fa bàyyi dem wooteel keneen keneen ka ni wooteel du man man Moustapha Sylla maa leen koy wax mais la l'essentiel bi mooy li nga xam si ni moom fi tax a nekk mooy li xew ma xamale ni lii xew na lii dëgg ma leen mooy dëgg lu loolu dëgg ma leen du dëgg mais suñu problème dëgg dëgg dëgg dëgg Talla Gadiaga la parce que 19 ans xale bu si juddu woon actuellement ni majeur nga budget 750 millions musuñ ci réceptionné lo xam ni 10 millions la par an xam nga 750 millions ci maire du dara wul deug la waaw ah, am bari wul ci yenen maire yi mais bu dee ci maire Malika bari na li tax mané ne bari na Malika yaatuwul googu yaatu yaatu bi parce que amuñu lo xam ne si war nañ xalaat ni war nañ ci mëna def alal ji nga xam ne mom lañu wara liggé wala bok mu soxla lu ko parce que amul ñi nga xam ne mom la maire di jël nombre bu war a lekk xaalis bu toll noonu ci seeni salaire kon bu budget sept cent cinquante millions bu duggee foofu noonu te amuñu dara loo xam ne defal nañ ko population bi kon budget bi pourquoi ñu ko doon voté lan moo tax ñu doon voté budget bi. mais ci tawat yi yëpp ngay wax ak euh, tuuma yi yëpp est-ce que jéem ngeen yéen kuréel googu dem gis ko moom waxtaan ak moom taal gàj ga ci jafe-jafe yi mu expliqué leen lii nu mu demee suuf si nii la demee suuf si nii la demee wala ngeen di toog di ŋàññi rek. suuf si taal gàj gi chaque jour chaque jour ma tok ak mom ba actuellement réunion bu amé man dañ may nëbbatu. yow conseil municipal duma conseil municipal dama doon nit ku dëkk Malika xam la fa nek à chaque fois nak la fa nek lama koy tax ma xam ko man may dem ba fekk ko. xam la fa ah, nek wa luy luy nday nga yakarna war lañ la wo ci ab réunion itam. non réunion pour tout le monde la bu conseil municipal o ma fa kaddu dama dem pour tok pour déglu xam lan mo xew. am parce que amul cadre conseil municipal am naa ci droit mais réunion pour ñëpp la képp ku fa am xalaat loolu moo tax fu wetu réunion ma jóg bàyyi sama liggéey dem fekki parce que dama bëgg ëllëg su may wax ma wax lu ma xam ba kenn du ne ma li ngay wax du dëgg wala boo ma di weddi na nga indi ay preuve leer xam ne kii li may wax dëgg la wala du dëgg beneen bi si topp nag li jëm ci wàll foncier yi wax nga ko sànq problème foncé bi mooy problème Malika parce que Malika amuñu lenn loo xam ne actuellement am nañu ko. dégg naa da ngeen a ngaañ itam. Mhm. Euh, la yaa wu ñu jox euh, ben borom station foofa ak sen euh loola itam bokul ci li wara mëna jëmele diwan ba kanama ah, euh, ba ngeen koy ŋàññ am déet. déedéet lolou mënu jëmele diwan ba kanam parce que mënu ma fekk ab jall bo xamne dañ ko jal ba mu kawe ma ñew di ko dolli am ño xamne faxé bu fexee am lu ñu jël ci wet gi ba mëna jall ko mom ba paré juddo ci dëkk bi magé fa yore fa sen lepp di fay ay taxi ci bi dëkk bi. te la mu man moom. borom station boobu. borom station boobu ci ci Sénégal la dëkk itam. Sénégal la dëkk. Ah. buy dem ak kon loolu jërul ñu koy nëbb parce que jox nañ ko fa neuf hectares yoo xam ne si ni nee nañ président de la république moo ko jox man Babacar nag maa ngi lay laaj ba xam mos nga gis décret présidentiel boo xam ne si nii président bind benn décret te ginnaaw génnul journal officiel. 9 hectares nee état moo jox te kenn musul vérifier ba la décret présidentiel bi fi la jaar man gis naa kon xabar bi wérul nañ ci def nànk du nonom exactement waaw. ñi lay gëreum en tout cas Moustapha Sylla mhm. bu mouvement Malika d'abord. Mhm. Euh, ñu lay dakantelé fofu la voix des des sans voix. Mhm. Euh, sabab bu waxtan bi mooy euh, nemmeekuk Macky Sall fofu ci Malika ci Mbëbës. nga xamni da fay sumbu tay projet di projet bi jëm ci yeesal mbëbës euh, yorin waak euh, nañuy géré mbalit ma foofu jërëjëf Alaaji Njóogu mm-hmm. jaajëf Cheikh ñu yendoog jàmm